waaye gaawal waaye yow tamit. eh te eh, daal li nga def ci tey baax. kan Jibi Njaay rek. su la kubalee nga xam ne lépp dëgg la. xale yi naan topp tey baax tuur ci la la defal. topp. bu waxtu bi jotee rek ay xaru. yéen jàll ko. bismillah. yàlla baax na. damaa dafa nga ginnaaw côté bi gis naa fa ginnaaw côté beneen. defaloon naa la bu baax loolu. tey doo teel a reer ndax benn bi ngay lekk dafa diis moo rek. waaw man. waaw dëgg nekkul. xam nga ñu naan doole yëngu daal ku njëkk da nga gën a. waaw ji. bal dégg nga. xool. doole yaa ngi bi. foofu moo benn yoon da ngaa raccorder say accord ba mu bi waaw nga teg ko ci temps. foofu neex na kon. ah su lay neex pourquoi. loolu ko def tey da ngay beñe nii mën nga xool fi nga nekk ñam nga ci beñe beñe bi dafa diis nanguwu daal da def beñe ko. waaw. defal nga lu ma bëgg. yaa ngi enchaîné ju ju sama kaw da nga maa dama lay defal ñaari couleur laisse moi en paix. <laughs> laisse moi en si caaxaan lan la. dara nooyu de. lan nooyu foofu. dañu bi dëgg na jëkkër bàyyi sa caaxaan yi nga xam ne bañ a bi dëgër. dafa dafa dafa dafa dëgër. dafa dëgër bañ a moom bu nooyul moom du ma ko du ma ko mën a gis. mën na tourner sa bopp nga doon. ah ma gën ma gën dëgg. mais bañ a bi nooyul de ah. jëkkër loolu nga bàyyi ma dégg bu nooyul nga ponse ko. lu woo ponse ko. waaw ponse ko. ah kon da nga ko da nga ko programme pour ñu ponse ko. waaw. du <laughs> ma ci xam dafa dëgër nag dafa dëgër. crève cœur. kon beñe bu dëgër ngay lekk nii am suñu place bi ñuy doge ñun suñu beñe xam nga ñu ko nga koy lekk buy nooy di <laughs> eh, eh. nga la crève cœur ngaa nga nga la laa wax ba nga ngaan ah. ngebal ngebal. bisimilah. bisimilah. dugalal. yow yaa ngi dugalal. Serigne Mbaye ma ne ndax yow yaa ngi dugalal. moo ko dugalal bopp man dugal na ma ko dugalal. sama yoon nekk ci moo ko dugalal. moo ko dugalal yow da nga maa bëgg a miin ci boppam. waaye naa ko lijjanti ak. Thank you. dafa titi dafa titi eh xam nga sa jeu yi ngay def ay ay jeu de rek ngay def nii li nga def nii nii lii ay jeu de rek la xam nga bëgg nga xam jeu bii ci laa mënut a continuer. man maa mënut a continuer ci jeu bi te heure bi sax lay jeex nag jeu bi ngay wax day dakk léegi bis ki ni tay la jeu bi di dakk. man maa amul ak wax benn xale bu gëlëm man maa tëdd ni coono du bari du jëm kaw gannaaw yow li fi xew yépp yaa nekk ni toog awma lu may wax ak yow waxtaan naa ak sama njëgënaay jël naa sama décision te du ma ci dellu gannaaw damaa bëgg fii nga taxaw nga may ma sama baat. ba may la sama baat. ah d'accord. sa njëgënaay yow la commencé encore. merci. xoolal. biir kër ma man man ay njëgënaay bi mu fi nekk di conseil sama waa kër de tabax ma moom sama kër man yéen yéen a gën a seet njëgënaay yéen a bële njëgënaay bële njëgënaay sept ma def ci yéen ay njëgënaay ngeen dëgg njëgënaay bu ma lu ma def